dafa am ku dox seen digg mooy diggante mooy état. Mhm. mooy république bi entre professeur bi di grève ak étudiant bi wala élève bi dafa am ku dox seen diggante mooy euh, état entre magistrat bi di waa syndicat justice yi ak les citoyens dafa am ku dox diggante mooy état donc état mooy li nga xam ne moo ñu boole ñëpp état Sénégal nag dafa tàmm bu problème amee boo xam ne moom mooy am responsabilité bi dafay génn. bàyyi gars yi di dóorante seen biir. tey booy xool réseaux sociaux yi ngay seetaan télé. dafa mel ni dañ ne tey guerre contre personnel de santé. contre citoyen Sénégal alors que loolu mënul nekk bu ñu duggee ci yoon boobu rek dañuy nax suñu bopp man day dama dund lu bëri bitim réew booy ñibbi si Sénégal dans ces conditions. da ngay xam ne le problème bi nga mën a bi nga gën a mën a confronté wu. Mhm. problème mu santé lay doon. parce que fii lu nekk mën nga ko muñ. Mhm. mais question de santé ak jàng moo ci gën a metti dinaa mhm. ci ñëwaat. mais man bi ma ñëwee ba léegi dama am agréable surprise maanaam bànneex bu neex ci personnel de santé bi nga xam ne ñoom laay rencontré Sénégal. wax dëgg yàlla dama ci gis chaque jour ay docteurs la plupart du temps ay jeunes ay jigéen ay mag ay ndaw ay ndaw yoo xam ne da ngay xam ne ñii am nañu xam ñii jàng nañ ñii fa ñu toog war nañ fa toog donc ñooñu seen liggéey bu jaarul yoon responsabilité bi feneen lay nekk. feneen foofu mooy état bi état dafa am responsabilité par rapport ak médecin yi. tey bëgguma def politique. mais ñu suñu parti Awalé yàgg na proposé bi ñu juddoo ak léegi. que benn paradoxe dafa am ci corps médical bi. médecin yi booy xool bu ñuy am bac di dem université ñu ne da ngay defi médecine. du n'importe kii mooy def médecine d'habitude ñi gën a aay ci série scientifique yi ba pare gën ci jeune ñoom la ñuy orienté médecine bu ñu demee seen jàng moo gën a gudd te tey boo xoolee bu ñu génnee nekk ay docteur ñoom la seen salaire gën a ndaw ñun ñu ne ñooñu da nga leen war a protéger parce que médecins sénégalais quand même bariwuñu mhm. corps médical bi yëpp waxuma rek docteurs yi corps médical bi yëpp boo leen boolee ñetti état di fay huit mille huit mille personnes lañ weesuwuñu ko ah donc ces médecins là pour man da nga leen war a mettre dans des conditions exceptionnelles mm-hmm. bu dee dafa am ñoo xam ne état dafa leen war a neexal pour ñu liggéey ñoom lay doon mais pas comme déclaration bi président de la république def keroog mm-hmm. ne voilà ku ñu ci orienté wala ku ñu ci affecté demoo sur le champ dañ lay dàq mm-hmm. kooku ñu affecté demul sur le xoolal lan moo tax demul nga mettre que dans des bonnes conditions médecins yi contre ñun ñi nga xam ne ñooy feebar di dem ci hôpitaux yi mais ñun ñoo far dañu am état boo xam ne taxawul ci responsabilité am te responsabilité boobu daf ko war a jël ci ministre bi yàlla rek moo xam ku ñu war a dàq ak ku ñu warul dàq loolu prérogative président Macky Sall. Mm. mais man li ma rafetluwul ci Diouf Sarr mooy ñàkk jël kàddu bi. Mm. te loolu nag ñàkk wekk sénégalais yi la. crise bu tey nii mënu fi nekk depuis ñetti fan ñeenti fan ñëpp di ci wax. Ah, yow nga def benn communiqué toog sa bureau jàpp sa njàmbur. loolu c'est pas normal. Mm. dafa waroon génne def conférence de presse boo xam ne toute la presse nationale dinañ fa taxaw ku am ay question nga posé ko. mais rôle bi mu jël dafa neex président la république ne ko defal ma rapport mu def rapport dem conseil des ministres ñu dàq directeur bi mais directeur bi bi ndaw sosi di dese de moom toogul ay employés ñoo toog. Mm. parce que dañu topp chaîne de responsabilité bi. Mm. moo tax mu yëg ci directeur bi. mais bu dee directeur bi nekk fa woon ñu jàpp ne responsable la mais ministre bi nekk fa woon kon responsable la. Mm-hmm. kon président de la république nekk fa woon mais responsable la. Mm-hmm. mais mënoo jël responsabilité bi dagg ko ci digg bi am ñoo xam ne kenn du leen laal am ñoo xam ne ñeneen dañ leen conseil des ministres lañ jëlee décision boobu. Mm. voilà tey fi may terminer ci question boobu man 2002 2003 Genève laa mas a dem benn exposition nii ànd ak sama soxna. jour boobu yegguñu yeggaliwuñu exposition yi parce que dañu ñëw ñu gis benn def benn ngandum tableau def benn classement def dëkk yi nga xam ne ñoo gën a bon ci àdduna parce que fa la jigéen di joxe bakken di ñàkk bakken ñu gis Sénégal nekk ci ndaare yi 2003 jour boobu dañoo rus ba yeggaliwuñu exposition bi dañu génn ñibbi am gejj am gàcc mm. tey bi may ñëwaat xoolaat naa classement bi ba boo xam ne banque mondiale moo ko def bi ñu mujjee def 2015 la sur 183 pays dans le monde Sénégal mooy cent quarante cest c'est-à-dire que 40 pays la ñu raw presque ñëpp ñu raw te loolu mooy dëkk bi nga xam ne rek mortalité maternelle booy sukk di jur mm. doom ji na muy delloo parce que nekkoo dans de bonnes conditions mm. sur 100 000 naissances yoo jël Sénégal mooy téeméeri junniy naissance yoo jël cent cinq yi euh, yaay ja dafay gaañu wala bébé bi gaañu ci dëkk boo xam ne dafa mel ni Sénégal pour man gàcc la léegi nag pour ñëw ci affaire papier yi ngay wax euh, ñun suñu administration foofu lay commencé suñu administration ba léegi dañu ko moomul dañu ko xalaatul man loolu moom a gën a metti ci Sénégal xam naa nag dinaa ko wax ba mu booy ci nopp yi ñun dañu mësul toog Sénégal ne lii mooy suñu système nii lañ koy doxale lépp loo xam ne tubaab bi daf ko def ñun dañu jël ñëw importé ko mais xamuñu nan lañ koy doxale tey le problème le plus grave au Sénégal question de papier mooy question archivage mmh. tey maire yi boo fi dem ñaanu ñaanuma ko yàlla bu amoon benn incendie bu ndaw lépp yàqu na mënoo ko jotaat. maire yi Kaolack gis nga man ba ma nekkee étudiant suisse ba ma nekkee étudiant moom yàlla rek a xamati kañ la parce que boobu 2000 sax jotagul. ñuy préparer dem passage à l'an 2000. am na benn cabinet d'avocat bu ñu ma recruter woon xam nga lan moo nekkoon sama liggéey temps boobu. numériser tous les documents. cabinet d'avocat boobu amoon nañ plus de 150 ans. mais tous les documents du cabinet d'avocat depuis ay 1800 la ñu génn teg ko ci table bi ut scanner nañu da ngay cabillarder dindi noo yi scanner ko donc ñooñu problème boobu rek la nañ ko c'est-à-dire que tey benn dossier cabinet d'avocat boo xam ne c'était en 1902 mm. da ngay dugg ci ordinateur bi nga ne par exemple Diouf contre Fall da ngay tàppe Diouf dossier Diouf boobu nga xam ne c'était en 1902 dafay génne taxaw sa kanam. Mhm. ñun Sénégal rek la ñu problème yooyu ba léegi. man expérience personnel bi nga xam ne dund naa ko plusieurs fois. Mhm. mais bu ma koy expliquer dañ naan maan yaa toor alors que man xam naa ne tooruma. Mhm. mooy génn di dawal oto yoruma sama permis policier arrêté la Sénégal dañu jàpp ne loolu infraction la. parce que boo yoree permis bi. policier bi laaj la da nga war a génne permis bi joxe ko. mais pour man loolu du infraction xam nga lu tax. parce que état Sénégal moom moo am carence cest à ko moo mënul moo matlewul ñàkk matlem boobu mu jël ko teg ko ci citoyen parce que administration bi nga xam ne moo la defal examen permis moo la jox pièce d'identité moo la jox passeport nga pare permis bi yor ko mu nekk ci ordinateur am. Mhm. bu la arrêté ci tali bi. ne na loo tudd. date de naissance carte d'identité nga jox ko. moom benn bouton la war a tàppe. Mm-hmm. machine am wan ko ne ko El Hadj Abdourahmane Diouf mii am na permis tel jour lañ ko ko jox. mais parce que ñoom defuñu investissement ci machine boobu dañuy jàpp ne yow infraction nga. xuloo yu bari yooyu gis ci mbedd bi loolu lay doon man saa yu ma ci jàppee mu xuloo mais dañ naan maan yaa tort parce que yoroo sa permis le simple fait que yoroo sa permis mais am nga ko du délit du infraction. parce que permis bi mu ngi kër ga te ñoom xam nañ ban numéro de série lañ la jox. xanaa xam nga nag loolu la lay da ngay dem kaso moom da lay tëj ci parce que porox ndollo la justement ñu dem jël 100 millions jënd ko ay machines boo ñëwee ñu xam ne am nga permis li leen arrangé mooy ñu lay laaj papier bi. dëgg la amoo papier bi ngay jël di leen jox. Mhm. domaine boo ci jël ñun tey ñi nga xam ne ñun ba ñu amee ay diplôme yàgg na tey pour nga jot ci bi diplôme man dal na ma récemment. ma soxla diplôme boo xam ne mat na plus de vingt ans. Mhm. mais c' la croix et la bannière pour nga jot ci. Mhm. on est dans un monde boo xam ne moom la ñuy woowee paperless cest à tey kenn yoratul këyit. kenn yoratul papier tout est numérisé. Mm-hmm. suñu administration fan lañ toll ci domaine numérique am na livre bu ma bind récemment maa ngi ko ciy wax. Mm-hmm. gis nga tey bu ma amoon ndogal ci réew mi dafa am ñaari domaines yoo xam ne Sénégal daf ci war a investir. Mm-hmm. bu njëkk bi mooy ANSD ñoom ñoo yor statistique beneen bi mooy domaine nu archivage. statistique lu tax tey Sénégal ñun xamuñu dara yoruñu dara mënuñu dara xamuñu lu fi xew gis nga soxna soosu génn àdduna. boo tegoon fii tey kuy liggéey dans la domaine de la santé nga laaj ko ñaata nit ñooy jur doom ci at bi at doom ji génn àdduna bu demul xool rapport banque mondiale bi ma la wax moom du ko xam alors que dëkk boo dëkk bu mel ni Sénégal war nga xam sax ñaata baguette u la fayeen yi di ndekkee par jour ñaata baguette u pain dañu ndekkee par jour mhm. ñaata xar lañu fiy rey par jour mhm. ñaata nit lañ kër gu nekk ñaan lan moo fa dëkk mhm. loolu mooy statistique parce que loolu boo ko amul mënoo am politique développement yow boo nekkee ci sa biir kër nga ne yaay borom kër gi mais mënoo joxe dépense selon que kër gi dix personnes la wala deux personnes mais ñun même nombre population Sénégal ci dëkk bi xamuñu ko. exemple bi may joxe souvent xam nga li ñuy woowee plan Sénégal émergent. Mhm. xam nga moo fi nekk depuis président Macky Sall nekk fi. plan Sénégal émergent boo jëlee version papier bi ci première page bi. population bi ñu joxee ne Sénégal moom la. ñu mhm. bind ko en français. Mhm. nga dem quelques pages après ñu def. population bi en anglais. Mhm. population Sénégal bi ñu joxe en français ak bi ñu joxee en anglais bokkul. <laughs> te loolu mooy document de référence Sénégal boo xam ne ci la Macky Sall di di basé wu pour jiite ñu. Mhm. donc tey dafa jot ñu réfléchiraat suñu administration ba administration bi gën a jege foofu laay terminer boo ma ko mayee. parce que li xew ci papier yi li xew ci santé bi li xew ci justice bi yëpp parce que dañu for ñun benn administration coloniale de commandement. te loolu xam naa bu ma ko waxee fonctionnaire yi dinañ ñu mere. mais ñu ci bëri ci fonctionnaire dañu jàpp ne que ñoom ñooy liggéeyal état keneen liggéeyul pour intérêt état. dañu jàpp ne ñoom ñoo yor li ñuy wax puissance publique maanaam ñoom ñoo fi nekkal nguur ñoom dañu am droit saaga dañu am droit gëdd dañu am droit bañ la faale. dañu am droit ñàkkal la fayda parce que ñoom ñoo taxawal nguur. parce que loolu tubaab bi moo ko fi def te tubaab bi ba mu ko fiy def na mu daan doxale biir France tubaab entre du ko doxale Afrique. parce que fii tubaab contre nit ku ñuul lay doon nit ku ñuul gi danga koy gëdd taxaw ci kanamam noot ko pour mën a am ci moom li nga xam ne moom nga soxla bi tubaab ba demee ñun ñu ñuul ñi nga xam ne ñoo remplacé tubaab bi noonu la ñu continuer doxale moo tax fii ci sa biir réew nit ku ñuul mooy toroxal nit ku ñuul mm. parce que kenn ku ñuul ki dañ ne la yow état ngay liggéeyal mm. keneen ki ñu ne la liggéeyal lu ñu état ñu leen di fàttali ñoom ñëpp mooy Sénégal benn bopp la mm. ki liggéeyul état nekk ci secteur privé ñoom ñooy dundal ñi nekk ci biir état nekk ay fonctionnaire wala ay agent de l' loolu boo nekkee ci état xamatoo ko rek mooy nekkatoo ci service public service public boo ko yoree waroo jiital sanction da nga hmm. war a jiital waxtaan leeralal nit ñi boo dajee koo xam ne ay këyitam matul da nga ko war a leeral nu mu fexee bay am këyitam dernier exemple pour conclure tey dinañ ci ñëwaat. Mhm. fichier électoral le plus grand problème du politique du Sénégal mooy fichier électoral kan mooy voté kan moo dul voté parrainage et cetera loolu lépp affaire u këyit la. Mhm. mais dëkk boo xam ne nee nañ investir nañ ay milliards. pour am ay carte d'identité numérisée mhm. mais inscription sur les listes sax warul am parce que boo juddoo da ngay am këyit. boo amee këyit état xam na la mais noonu ñu bindee sa këyit ba nga nekk ci fichier bi. mais nañ ci def rek benn bouton boo xam ne boo ko bësee dina wane jour bi ngay am 18 ans. jour bi ngay am 18 ans ñu produire la benn carte boo xam ne moo tudd carte électeur t'as pas besoin yow. nga jox doom ci naaj bi ne da ngay inscrire pour liste électorale loolu en 2022 c'est démodé. Mhm. kenn neewul vote c'est obligatoire mais nañu fexe këyit bi nga war a yor nga yor ko. Mhm. bu jot élection jote bu la neexee nga bañ a dem voter. Mhm. mais loolu yëpp responsabilité état la mais puisque dañ koy politiquer ils pas intérêt. à ce que ñëpp bindu ñëpp am carte d'électeur donc suñu système dañ ko war a xalaataat en fonction des réalités de notre pays en fonction du fait que service public dafa war a nekk yow da nga war a jaamu sa askan. man de lool laa xam te gis naa ko ci yeneen dëkk yoo xam ne loolu lañ ñu rawee malheureusement fii Sénégal amu fi c'est la responsabilité de l'État qui est interpellée quand je dis nag État. du Macky Sall du Abdoulaye Wade du Senghor du Abdou Diouf mais état bi nu muy doxee moo baaxul. te mhm. buñ ko continuer nii keneen ku fi ñëwaat tam ëllëg boo deful nag même difficulté yi ngay am. dama am benn tiktoker bu ma gis euh, bërki démb ci internet bi benn booy buy def tiktok. Mhm. mu ne comment les citoyens français peuvent aller voter. Mhm. mën nga yóbbu sa carte d'identité comme mën nga yóbbu sa passeport wala sa permis de conduire. wala sa carte vitale. à moins na am sa photo rek. exactement yow tu n'as même pas besoin dalee t'inscrire di rang di inscrire après rangaat dem voter ñu ne sa bureau de vote fii la non du fii du euh, c'est compliqué loolu yëpp bu ñu ko xamoon waaye nag dafa am beneen problème boo xam ne am na ci askan wi mooy bu ma dikkee ci kër Baye Thierno Mouride Sadikh ne ko ñaata nit a nekk ci kër gi maanaam loo ñuy wàññee <laughs> da nga bëgg ñu xam ñaata lan hmm. loolu aussi beneen problème la hmm. daan ci dellu si waat ci kanam tuuti on a quelques réactions des internautes suñu internautes yi nga xam ne ñoom ñu ñoo ñuy topp Euh, te ñoo leen joxoon ab numéro ne leen wax leen seen xalaat dañ koy jël c'est pas des bluffs on a un élément on le regarde Modou Mbaye ñëw ak ñun ci affaire bu extraordinaire bu ngeen musta dégg xëy na man de bi ma ko déggee damaa jom bi ba léegi ñu xool élément bi te dellu si ci lu war la mu di jafe-jafe joo xam ne nii askanub Sénégal ñëpp a ngi koy jànkoonteel te lu luñ ci wax lu néew la moo di jafe-jafe wutub këyit mu nekk casse boo xam ne saa su nekk ñu ngi koy jànkoonteel firnde gi nag lu yomb lay doon moo di élèves yi nga xam ne dañuy jàng te yenn saa yi duñ ko mën a matal sax ndax jafe-jafe këyit du ci benn du ci ñaar saa su nekk kaa yi daal di ciy fës te te kenn du ko daal di waxtaanee leneen lu ñu nemmeeku moo di taxawaay yi nga xamante ne ni nit ñi ñu ngi koy daal di taxaw ci yenn ci administration yi lenn ci loo xamante ni nii bokk na ci lu ñu mën a lim moo di délai yi nga xam ne dañ leen koy jox te duñ ko respecté lu ci mel ni këyitu passeport lu ci mel ni carte d'identité renaissance rawatina ñi nga xamante ne ni yenn saay ngir ñu daal di jot seen i diplôme jafe na lool ngir ñu daal cey jot li ko waral nag moo di taxawaay bi nga xamante ne ni administration bi ñu ngi koy daal di amal ba tax taxaw seetlu fokk rek ñu daal di amal taxawaay bi nga xamante ne nii ñu ngi koy daal di taxawee ndax coono goo xamante ne nii la amul àpp te saa su nekk nit ñi ñu ngi koy dund te mënuñu am fu ñu koy waxee jafe-jafe jooju nag